dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenikaay doxee kook vox populi mi xëy dikkaat ci Waly Bodian moom nag mu ngay xam ne rek nga xam te ni moom la ñu naral opposant milliardaires yi maanaam li nga xam te dañu nekkoon ci nguurug Macky Sall doon yaataayu mbay jël di ko pasara pasare mun nag général bu port bu bees bi daal ah, tàmbali na wone naka la ñu nar a jëflante ak ñoom ñooñu daal nee na nguurug Sénégal du leen may lenn dana leen topp ba ñu delloo si koppar nga xam te ni jël nañ ko ci sunum sàq waaye itam ñu daal di gis si biir journal bii di vox populi ba léegi nataalu bi di jëwriñ jëwoon Amadou Ba ñu ne nag moom delis na ci biir Ndakaaru te nag ci ayu bi ñu nekk dana janoo ak woy taskatu xibaar yi kii di Ousmane Sonko ilimaani jëwriñ ci biir Vox ne boo xam te ñu ngi ko doon amal ci domaine maritime public bi daal nee na danañu ko dakkal fii ak ñaari weer bëggatul gis kenn ku fay foste xànc ak morom ma noonu la ko Vox Populi daal di xamle l'indépendant yéeni kay nañu lu jëm ci wàllum répression bi nga xam te am na ci diggante mars juin te am ay nit yu ci faatu Macky acculé à la CPI Cour dañu ko daal di yóbbu noonee la ko l'indépendant yéenekaay daal di xamle waaye kii ilimaani jëwrin yi ci biir l'indépendant yéenekaay ba mesures du premier ministre Ousmane Sonko moom ilimaani jëwrin ji jël fukki dogal ak ñeent noonee journal bi daal di xamle l'observateur yéenekaay daal di dikkaat ci li nga décision de justice mu rebondissement spectaculaire dans l'affaire des milliards mu nag radiation de la prénotation de la SNHLM sur le titre foncier numéro et l'appel du mandataire de la famille à Diomaye et Sonko noonu la ko journal bi daal di xamle waaye tamit mu dikkaat ci li mu duppee lu jëm ci wàllum dund gu cher gi ci biir réewum Sénégal mu ne la vérité des prix maanaam dëgg gi nga xamante ne nii moom la njëg gi di wax jamono jilee bu wute loolu ak li nga xam ti moom la ñu bëri bëri jàpp ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko mu ne lu jëm ci wàllum blé lu jëm ci wàllum ceeb diwlin suukar mu ne loolee lépp dañu koy jéggaane te nag bala nga am dund gu yomb dafay fekk lu ëpp ci la ngay dundee doo ko jéggaane Aziz Ndiaye di importateur mu ne daanaka ceeb bi ñuy jéggaani ci bitim réew mu ne nag la fere ci ceeb boobule sax daanaka moo ëpp fuuf la ñu koy jaay noonee la ko Aziz Ndiaye daal di xam ne ci biir journal bii di l'observateur yéeni kaay waaye lu jëm ci wàll njàng meeg njàngale mi l'observateur yéeni kaay nañu ba léegi la galère des étudiants sénégalais en France resté deux mois sans bourse maanaam étudiants sénégalais yi nekk ci France ñaari weer a ngi ni ñu toog ko jotuñu bourse noonee la ko l'observateur yéeni kaay daal di xamle direct news mu ne la fin du programme promise annoncée des accords au sein du gouvernement maanaam xam te ñoo nekk ci biir gouvernement bi programme bi ñu diggante woon askan bi loolee nag dafa mel ni dañu ci am ak waraloo noonu la ko journal bi daal di xamle le peuple yéeni kaay nañu sorti di DG du port Sonko face à la réalité des prix Ousmane Sonko ak li nga xam te moom mooy dund gu cher gi ci biir réewum Sénégal mu ne le gros dérapage de Waly Diouf Bodian kàddu mu yëkkati te xëy na waru ko woon a yëkkati noonu la ko journal bii di le peuple daal di xamle la dépêche yéeni kaay nañu manifestation menace terroriste ak élection le tourisme a payé le prix fort gannaaw jafe-jafe yi fi amoon ci wàllum politique daal tourisme bi moo ci gënoon a sooxe noonu la ko journal bi daal di xamle le républicain yéeni kaay xëy dikkaat ci li nga xam te moom moo di accident yi am ci yooni Sénégal mu ne des pistes de solution prometteuses en cours maanaam ñu ngi tàmbali nag gis ay yoon yoo xamante mën nañ fa jaar ngir moytandiku l'accident yu métti yi am ci biir réewum Sénégal ci biir journal bi di le républicain ba yéeni kaay ñu gisaat ci lu jëm ci wàllum insécurité ak monument de la Sagna mu ngi sàkku rek ci gouvernement bu Sénégal ñu jël ay dogal ci ñàkku kaaraange gi am foofee ci monument de la renaissance le soleil yéeni kaay ci li nga xam ñoom ñooy tabax ay taax ci domaine public maritime bi noonee la ko journal bii di le soleil yéeni kaay daal di xamle waaye tamit mu ne ñu kii di la général Martin Faye décline ses objectifs maanaam li nga xam ni noonee la bëgg a loolee mu ngi koy xamle jamono ji lee BRT bi ak nañu ko nar a jëfandikoo lépp la solo yéenekaay dikkaat na ci mbir moomulee L'Éveil quotidien nañu trafic international de cocaïne juróom ñoom la jàpp ca l'aéroport international Blaise Diagne ñoo la ko journal bi daal di xamle mu ne ñu ñooñee day dañu yoroon drogue bu bon bii di cocaïne ba tax na nag teg nañ leen loxo foofee ci aéroport international Blaise Diagne L'Éveil yéenekaay yemut ci loolee mu ne ñu nag Pastef Gomis dana daal xàll yoon wi nga xam te ni foofu la fu séene jaar naka la nar doxale ci wàllum politique Le Réveil Quotidien xëy dikkaat ca Tabaski 2024 bi ci njiital Ousmane Sonko nag daal dinay jël luy tolloo fukki dogal ak juróom noonu la ko Le Réveil Quotidien xamle yor yor quotidien dikkaat ca dakkal gi nga xam te am nañ ko liggéey yi am ci domaine public maritime bi mu ne nag kii di ilimaani jëriñu Ousmane Sonko daal moom daanaka loolee laami soo wucce dafa bëgg rek ñu dakkal lépp fi boo xamante ni kenn du tabax lenn source a dikkaat ci ngan gi nga xamante ni Jean-Luc Mélenchon njiital France insoumise moo ko war a amal ci biir réewum Sénégal ana lan moo waral googuleeg ngan lan moo nekk tànki Jean-Luc Mélenchon ci biir réewum Sénégal source a dikkaat na ci mbir moom lu waaye itam dikkaat ci conclave bi nga xam te am na ci diggante opérateur yi yëngatu ci wàllum jiwu wi ci biir réewum Sénégal ngir waajal lu jëm ci wàllum nawet bi mu ne ça ne sent pas bon maanaam la cay xeeñ neexul jamono jile ci lu jëm ci wàllum campagne agricole bi réew mi quotidien dikkaat na ko ngir dakkal bépp bu am ci domaine public maritime bi ana lan moo tax Ousmane Sonko ilimaani jëwriñ yi jël boobu la yu demoon journal bii di réew mi quotidien dikkaat na ci mbir moom le le point yéenikaay mu ne journaliste chroniqueur et défenseur du projet Pastef Serigne Sali Saliou Guèye une pièce majeure de la résistance kii di Serigne Saliou Guèye borom journal bii di yor yor moom nag bokk na ci nga xam te ñoo gën a jëmmale résistance bi njiital Pastef ak ay ñooñam doon woote ci biir réewum Sénégal ndax nag moom daanaka bokk na ci ñi ko gënoon di défendre ci biir journalam bi waaye tamit ci chronique yi nga xam te doon na ko def le verdict yéeni kaay nañu tabaski 2024 conseil interministériel fukki dogal ak ñeent moom la ilimaan yi jëwriñ ji Ousmane Sonko daal di jël ngir nag yombal tabaski gi waaye tamit yombal njaayum xar mi ci biir réewum dikkaat na ci nganuk Jean-Luc Mélenchon ci biir réewum Sénégal mu ne nag les consécrations d'un soutien constant à Ousmane Sonko kii di Jean-Luc Mélenchon nekk nit koo xamante ni yàgg na jàppal tànk ilimaani jëriñ yu Ousmane Sonko ndax saa su nguur gi fi nekkoon daan dal ci kawam rek moom daal dana génn wax li nga xam te moom mu nekk xalaatam ci mbir moomule waaye tamit dànkaafu nguur gi fi nekkoon noonu la ko journal bi xam ne lii quotidien moom itamit ay dikkaat na ci lu jëm ci wàllum dakkalub liggéey gi ci domaine public maritime bi lan moo tax lu jëm ci wàllu littoral boobu Ndakaaru kii di gouvernement bu bees bi nag daal di ciy bu lool bëgg dakkal liggéey waaye tamit bëgg a xoolaat na nga xam te ni la mbir ya demee ilimaani jëriñ ji daal di jël dogal ni fi ak ñaari weer bëggatul gis ku fay yëkkati birig di ko fa teg ana lan moo waral lu mel lan moo tax ñu sawar ci dal daal lëmbët mbir moomule journal bii di lii quotidien dikkaat na ci le regard yéeni kaay ñëwaat na itamit ci li nga xam ti moo ñeel conseil interministériel ba am ca jam ñaajo ci njiital ilimaani jëriñ ju Ousmane Sonko ak wàccaayu tabaski gi mu ne nag fukki dogal ak juróom moom la gouvernement bi jël ngir nag yombal xar mi ci biir réewum Sénégal waaye bépp jëmtuwaay bu ñeel wàllum tabaski gi rek fexe ba benn jafe-jafe du ci am nu ne la ko journal bii di Le Regard daal di xam ne tribune yéenekaay dikkaat na nag ci li nga xam te ni moo ñeel njëggu cher ci biir réewum Sénégal mu ne ilimaani jëwriñ ji di Ousmane Sonko nag la nga xamante ni joxe woon na ko dig daje ne dina wàññi njëggu yenn jëmtuwaay ci biir réewum Sénégal maanaam dund gu cher gi nag moom nag daal dinay randal date ba nga xamante ni moom la joxe woon noo la ko journal bii di tribune yéenekaay yi daal di xam le kon li gënoon a fës yi ñu doon leen ko jukkil di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf